Georges Nesta est-ce que du Macky Sall dafay nekk di waajal boppam moom ak ñi nga xamante ni ñoo ko doon jàppale ba ëllëg créé yi bañ leen topp pour enrichissement illicite. xam nga c'est bien boo ngay créer ay euh, ay institutions yoo xam ne de ñoo xam ne dañuy reprimer la mal gouvernance affaire yooyu mais lu si gën a am importance mooy comment fair pour que ñu dépolitiser ces institutions judiciaires là c'est ça le plus important bu mais bu fekkee nag c'est des yoo xam ne c'est des épées de la wala des euh, nu ñu sax ay paaka yoo xam ne dañ ko daas juste pour régler des comptes politiques ça pose problème. Mhm. parce que gis nañ fi CREI yi bu mu fi ñëwee. au passage may euh, ñaanal yàlla su ndem si yàlla l'ancien président. Henri Grégoire Diop bi fi jógee. vraiment suma doomu mbaay suma xarit ñu ñaanal ko yàlla xare ko arjan euh, CREI yi boobu bu mu fi ñëwee. liste bi bu Macky sal ñëwee list bi ñaata ñëw dafa ne woon créé baa ngi fi pour ñi nga xam ne c'est pour l'ancien régime maanaam ñoo xam ne ñoo àndoon ak Abdoulaye Wade mu ne ñun ñii nga xam ne nag yéen ànd ak man loolu of nak ngi fi pour yéen ku si def dara rek yéen foofu ngeen dem yow bu ñu commencé créé boobu ñaari nit yaakaar naa la ñu vingt y avait de vingt cinq personnes su ma juumulee mm-hmm. euh, mais ñaar yi ñaar yi si ñaar yi nga xam ne daal ñoo si xaw a ràññeeku si jàpp si jàpp mooy Karim ak Tahibou bu je crois bien ñaar ñooñu daal lañ si jàpp sur les vingt cinq yeneen yi yëpp dialogue ak négocier ak pexe am na si ñoo xam ne soo devenus ministres comme Oumar Sarr am na si ñoo xam ne Balde ay DG de nu mu tudd son oh, APIX APIX alors que DG APIX boobu pour nga xam ne sax dañ def ko négocier parce qu'il était député à l'Assemblée nationale député assemblée boobu bi gars yi di kii di kii. Macky fal gouvernement mu menacé menacé une semaine avant dafa menacé woon il a envoyé les jeunes de son parti en éclaireur commencé di bind def seen communiqué nous allons quitter Benno moo xam ne fu ñii kat bu ñu demee ak assemblée bi nu mu demee nii kon. yaakaar dina tas. Mhm. opposition moo fay ëpp doole mu négocier ak ñoom négocier ak ñoom Pape Diop ba mën a am euh, lu mu si am ni as as as bu mu am nii sax assemblée. donc bu fekkee nag institution yooyu nga xam ne dañu war a di réprimer sans chercher à savoir kii si man la bokk wala kële si man la bokk wala kii mën na ñëw si man ëllëg du am sens ce parquet financier là comme le dit euh, Pape Sané. sera dirigé par qui par des magistrats inamovibles maanaam magistrats yoo xam ne boo leen mënuñu bouger seen place dañu toog. même boo leen bëggee affecté sax bu ñu neexee ñu bañ ñooñu day xam ne boo leen santé liggéey boobu dañ koy def dans les règles de l'art mais bu fekkee ne c'est c'est un parquet procureur moo koy jiite procureur boobu euh, mais c'est c'est le le ministre de la justice moo mooy patron ministre de la justice kan mooy patron c'est le président de la république mm-hmm. donc sa ça ça revient au, même truc boo xam ne euh, que nag bu président lu mu bëgg rek mu teg si cam-cam mu jàll. d' accord d' accord timing bi Moustapha Diop euh, est ce que doyul waar quand à sept mois comme ni nga ko waxee euh, de de de la fin de son de son de son mandat wala de son règne euh, moom président Macky Sall di jël ay réformes yoo xamante ne dafa nar a engagé tout un pays. mais doy na waar Pape Mokhtar man su ma déggee Pape Sané expliqué li mu wax yëpp ci pôle judiciaire financier boobu. Euh, dama naan c' est très bien comme dit Georges c' est c' est c' est bien beau de l' comme ça que nit ñi comprendre mais man ñi ma yërëm mooy ñi am yaakaar ne avec euh, euh le président Macky Sall dinañ régle problème mu transparence wala non man ñooñu laa yërëm en fait mm. parce que est ce que ñun dañoo bëgg fàtte les conditions dans lesquelles le procureur Aliou Ndao a été limogé de la CREI moom ci boppam nettali ne dafa nekk ci procès bu ñuy attee Karim Wade ñu am pause frère am xaw ma sœur am moo ko woone ko xanaa yëgoo li xew mu ne ko lu xew mu ne ko dax nañ la suñ bëggoon transparence mais booba transparent woon nañ bu yàgg parce que une de vingt cinq personnes nga nga jàpp ci mennum Karim Wade ak bu Ndiaye am na ñu ne Aïda ayda Ndiong mais en tout cas les cinq moom bari ci ñoo xam ne gars yi defoon parce que bu ñu fàtte ne CREI dafa am commission d' boo xam ne defoon na liggéey ci ñenn ñi ba teg seen dossier ni ñii moom dañuy seet ba xam seen alal ji ñu yor fu ñu ko jëmee mais sàcc nañ Aliou Ndao raconté tout ce qui s'est passé mais après bu ñu toogee des années après ñu naan oui on va changer la CREI def ko benn pôle euh, judiciaire financier mais dama naan mais c'est quoi problème Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire que ni avec ça on va régler un quelconque problème de transparence ou de mauvaise gestion dans ce pays je ne crois pas man ce que crois pas Mokhtar euh, bi war a permettre ñu euh, sanctionner ñi nga xam ne dañoo yor koomu réew mi ji niñ ko te niñ ko yoree baaxul ça existe ci réew mi maam bi doon da koy fàttali lu bari Karim mm-hmm. Wade buñ ko àtte woon euh, ci juridiction normale yi nga xam ne moo nekk ci réew mi xëy na de droit commun duñ nekk fii di coow coow yuñ coow c'est parce qu'on a créé une juridiction exceptionnelle mm-hmm. que coow yëpp am ci mm-hmm. tey euh, euh, euh, la la CREI dont on parle xam nga ñi ngi ne Abdou Diouf moo ko fi teg après mu àtte ñaar nit ñu bàyyi ko fa dem mais Sénégal pour te dire que ni on a un problème d'homme on a un problème de de de d'institution ou de d'arsenal juridique. Mm-hmm. mais est-ce que xam nga ni mm-hmm. Sénégal amoon na benn ministre bu tudd Ousmane Seck. ministre des finance mais ce monsieur la il est nommé ministre des finances mu am un scandale au port de Dakar impliqué des douaniers mu démissionné. Mm-hmm. démissionné du gouvernement parce que nee na moom mooy patron wu douanier yi. jom amoon na fi nag. ah été ministre euh, sous Wade mais dañ ko fi jiiñ ci benn euh, tudd ko ci benn scandale ba amoon ci benn société bu mu doon diriger il était ministre boobu ak Wade mu démissionné. Mhm. daan bis bu ko leeralee su ko Ablaye Wade bëgg na mer mu namee waat ko. il est devenu président de l' assemblée nationale après. mais mhm. depuis que Macky Sall est président ñaata scandale nga fi dégg yu impliqué ay nit yoo xam dañ ko non seulement démissionné wuñ. amul début de poursuite mais mieux da leen defal ay promotion Mame Mbaye Niang moo doon démission démissionné te dañ ko bañ non mais c'est des conneries leen defal ay ay de de de de promotion donc pour hmm. man encore une fois le problème hmm. n'est pas de changer la CREI créer fi benn PJF xawma hmm. n'est de de de nommer parce que les juges la nga xam ne ñoom Ismaïla Madior di wax tey ne amuñu la formation ki leur permette de euh, de mën a mën a mën a mën a topp yenn délinquants financiers yi mais pourtant Henri Grégoire mii ñuy tudd moom moo àtte ñoom Euh, euh, quand il l'a fait qu'est-ce que le gouvernement a dit les droits de Karim Wade ont été respectés oui. c'était un bon procès oui, oui, tey on vient nous dire non c'était pas un bon procès il faut changer la CREI il faut ñu respecter au moins les magistrats yi nga xam ne ils fait ce travail là mhm, mhm. Mame Birame est yomb quand euh, nga jël CREI yi activer ko tëj si ay nit ba noppi nga ni CREI yi boobu da ko fiy supprimer est-ce waajal sa bopp waaw non moom kay xanaa xëy na a le président Macky Sall wax ne dañuy euh, euh, dindi CREI yi xamoon na ko bi muy toog. lépp lu tax tey mu ne dañ koy dindi xamoon na ko ba muy toog ba mu koy déclenché di nommé mois de mais deux mai 2012 les magistrats ak euh, composition CREI bi xamoon na li ci nekk yëpp pour man CREI yi kenn waru koo supprimer. dañ ko war a réformer cour boo xamante ne nii day jekki-jekki ne immeuble bi yaa ko moom wax ñu foo ko jëlee <laughs> en plus bu la tëjee amuloo possibilité def appel yaakaar naa loolu kenn du werante ne nekkul ci ne du justice mm-hmm. léegi nag oui politicien moom ak enrichissement illicite. Mhm. dañoo bokk camp. absolument moo tax il faut que. ñoo far ñoo far il di continuer di am. Mhm. mais ñu def ci ay réformes yoo xamante ne nii. poursuite yooyu nu ñu koy defee du euh, demee noonu. Mhm. en tout cas di leen jaajëfal euh, bu baax a baax. Aïda Diong a été jugé dans l' affaire des euh, produits et non à l' affaire CREI. du enrichissement illicite voilà. merci à Omar qui m'a fait cette précision là. d' accord di leen jaajëfal ñoom ñi ñuy suivre di nekk ci biir réew mi ci diaspora bi ak ñu doon topp ci page YouTube Walfadjri tolloon ci ay onze mille et quelques personnes en euh, di leen jaajëfal bu baax baax di jaajëfal Moustapha Diop de même que Georges Nesta Diop euh, Pape Sané ak Mame Biram di leen jox rendez-vous leen incha allah ci benn keppaar